boo si wax rek waaw boo si wax. Obeury si loonee. naa est-ce que ku. waaw tey ngi nii rek. dëggaay koor gi rek incha allah rabi man a ngeer. waaw. après yëngu. nga naan Diofior rek fépp ay yëngu waaw. waaw am naa client bu mag kay suñu grand guerre di ko nuyu rek xam nga di ko ñaanal jàmm ba bés ba rek waaw. ñu gis keroog Doudou boppam ne waat déet ngeen jëli ndaamal daaru indiwaat ko mu wane waat boppam. waaw yaa nga koor ji. waaw non dara man moom xam nga ne man sama affaire du yomb waaw incha allahu rabi niñ ko doon defee démb ak barki démb rek. lii jël si tournoi lii jël làmb xëy ngeer. xajul si ngeer. non napp moo ko. yaa ko wax ne. da koy may nag. waaw non loolu amul problème dinaa ko may nag bu mu def si kii bi bu mu def si regroupement bi quoi mais na ñëw bëree ma jàpp ko daan ko ndànk mais bu mu jéem a ne fii sax naan day naan day dëgg boppam di xeex sinon ah, Sénégal àdduna dinañ dañ si man waaw dama koy bañ a gaañ na ñëw ñu bëree ma jàpp ko ndànk daan ko parce que du mën a ngeer sama dama am yoon. <laughs> waaw. baax na ngay fanaanoo mer kon xaw man nga gaay doon <laughs> ngeer bu fanaanoo mer. waaw mais yaa baax na di ko ñaanal jàmm rek jantal grand ga quoi parce que moo may sens. waaw si côté lutte simple bi quoi amul benn programme di ko ñaanal jàmm rek ba bës ba incha allahu rabi waaw. bi gaay wa gaay maa leen raw léegi rek léegi ma wàcc. waaw Ibou Ndiaye rek daw wër géew bi loolu jar na jar waaw waaw waaw waaw waaw wow wow wow dafa wow dafa doy waar mais nag yàlla baax na waaw en tant que leader 34 leaders yi nga di bañ guddee bi quoi guddee gi nga guddee gu métti gi nga ñuy bañ mais 34 leaders yi mënoon nañ ko xaw a yokku nag sax bàyyi 40 yokk si beneen 5 personnes mais nag bon comme CNG ñoom ñoo xam li ñuy def waaw euh, di leen ñaan rek yàlla suñu borom gën a jàppale si job bi ba ñu gën a yërëm bëri gën ñoo jàppale gën a yokkaat affaire yi war nañ mën a dem sax ba cinquante affaire yi amateur dañoo war ah. balance bi ànd waaw balance bi non moom ànd naa parce que sama genre yi nii bu balance amu woon poids ga sa gaay wàcc bëri. waaw boros mais waaw waaw. ñoom ñëw bi dañuy dem balance. day day neex ay boo yooyu noonu dañuy neex ak làmb waaw ay waaw ndam daaru mais soo waxee ñu ne poids bi xam nga booy dem duñ jël risque làmb yi ñu ñu koy ñu koy ñu siy perte yenn poids yi parce que après làmb ji mooy ko te làmb dafa laaj làmb tuuti a waaw mais nag yàlla baax na quoi a ñaanal ñëpp jàmm rek doom day na mën naa nga après di jox gars yi rendez-vous réew dina yëngu waaw da ngay ñëw Diofior soo ñu toog waxtaan def émission yow bàyyi préparation combat bi rek incha allah rabbi yamanaga